jamono ji nga xam ne moom la a nekk te Macky Sall da a leer ne du buur te Macky du roi yéen a kaay Sud Quotidien nee na coalition Yewwi Askan Wi ni ki démb daan nañuy deltu ginnaaw ci nag rassemblement bi nga xam ne bëggoon nañu ko amala ay dëmboo ca démb yëkkate na ay kàddu nee na période tëbaski bii xam ne maanaam moom la ñu nekk bëri nañ ñoo xam ci askanu Sénégal sàkku nañ ci ñun ngir nag ñu bañ bi ndax bu ñu ko amalee maanaam jéye mën naa am ci réew mi ay dëmboo ca nee na bëri na ay commerçant yoo xam ne wax nañu ak waa coalition Yewwi Askan Wi waaye yoo xam ne wax nañu ak waa coalition Yewwi Askan Wi bëri na tamit ay coiffeuse yoo xam ne wax nañu ak waa coalition Yewwi Askan Wi waaye tamit bëri na ay parents d'élèves yoo

dëgmalaat du samay kaddu kaddu Ousmane Sonko la damay nettali ma ngi ci 24 heures ah. yéen a kaay gi ko Le Quotidien xëy ñu xibaar naan ñu Ousmane Sonko ñi nga xam ne ñoom la àndala ah. ñoom jamono ci nangu nañoo dem ci élection yi bëri na nag ay intervention yoo xam ne tax na coalition Yewwi Askan Wi bàyyi rassemblement bi nga xam ne namoon nañu ko amala ah. ndax kilifa dina kii di Thierno Madani Talla dugal na ci loxoom bu baax a baax waaye tamit Babacar Ngom bu Sedima dugal na ci loxoom Alioune Tine dugal na ci loxoom coalition sàmm jikko yi ñoom tim dugal nañ ci seen loxo waaye tamit moo di Giro moom tim dugal na ci loxoom bu baax yéene kaay gi nee na ki nga xam ne mooy Babacar Ngom ak Alioune Tine ñoom ndeke ñaar fukki fan ak ñeent weeru juin bi nga xam ne moom la ñu génn demoon nañu Touba waxtaan ak Serigne Mountakha lu jëm nag ci li nga xam ne mooy rassemblement bi coalition Yewwi Askan Wi namoon a amala waaye nag bañ fa jugee dem nañ ci ministre de l'intérieur Antoine Diome daal di waxtaan ak mooma yéene kaay gi di Sud Quotidien nee na jamono ci nag Tabaski gi ma nag bëri na xam ne maanaam amuñu xar xar na ba maara tabaski mooy ama 9 juillet ak 10 juillet yéen kaay gi de la Tribune nee na dëkk beeg dund beeg xar yeeg tabaski gi métti na ba maara détaal yi yéen kaay gi de la Seko nee na njabootu Idrissa Goudiaby mi nga xam ne moom la ñu fat fan yi ñu génn sa diwaanu Ziguinchor tey jii dinañu leen déglu ndax ñoom nee nañu balu fetal moo rey seen doom ji Idrissa Goudiaby yéen kaay gi di bés bi nee na fédération des syndicats de la santé ñoom tey jii dinañu amal nag doxob ñaxtu ñoom ñi nga xam ne ñu yëngatu ci wàllu wér gi yaram gi buñ fa jugee dinañu amal ci buntu ministère bi ñu dénk wàllu wér gi yaram gi ndax nag ñoom li nga xam ne moo leen naqari maanaam ñàkk respecté nga xam ne ñàkk nañu koo respecté protocole bi yéen kaay gi de libération nee na gaal gi nga xam ne moo tëmboon ci waaxi Kafountine ba am lu toll ci fukk ak juróoma ñàkk ci seen bakkan am na ku ci rëcc nee ku nekk lu toll ci quatre cent mille francs maanaam moom nga joxe lu toll ci téeméer ak ñeent fukk ñoo nekkoon ci biir gaal gi yéen kaay gi ñu xëy fekk fa Ousmane Sonko nee na lajj tegu Macky Sall lajj loolee moo tax xale yi di jël gaal gi di dem ci bitim réew war nañu see ubbi enquête le vrai journal xëy nag di ñu